rek ay seede ak i témoins yu ñuy def ci suñu frère Pape Maguette jaw nga xam ne man ak moom dañoo bokk sëñ Saaliw bokk doon liggéeyal sëñ Saaliw ca daara ja li ñu boole doon lu bari ca sëñ Saaliw daf ñu daan wax ne loolu moo di mbokk kon kii suma frère la ca lépp lu muy dugg daf ciy waxtaan ak man dañuy waxtaan lu baree baree baree bari xeebul sumay xalaat waaye man tamit xeebuma ay xalaatam. mbir mii bi mu nekkee ci xelam waxtaan nañ ci ma ne ko papp mu naa ma ne ko xam nga lan mooy honnêteté ci nit mooy bëgg sa réew bëgg sa dëkk bëgg fi nga dëkk mu am lum la jaral bi ma ko ko waxee mu xalaat ci it xam na ni li ma ko wax mooy dëgg ndax kenn ku ci nekk xam na ni président Macky Sall ak loo ko mën a mën a mën a wax du liggéey bokk ci ca ñun nag ku defar dëkk bi dong lañu bëgg ca boobu ba léegi ñi ngi ko koy xañ bii nag dafa jot ñu jox ko ko yéen waa Kër Niang nag dafa am léegi information bu ma fi am bii dafa neex que ni yéen rek yéene fi mas a gañeel APR fii ci commune Touba loolu nag delloo leen buum ca booy boy ba na safaat sap tàng jër boo ko defee président Macky Sall ñii buñ taxawaatee ak moom di wax danañ ko am luñ ko wax ca bu boobaa dana ko dégg. ndax bi mu recevoir département bi am na lu mu leen wax am na luñ ko laaj am na lu mu ñu wax mooy njëg gi dem leen fexee gañe gañe bi nag ñiñ ci gën a gën a yaakaar mooy yenn soxna yii toog mënuñoo sori nag ci wax ji ca nuyu ñu suñu frère le ministre des ministres Antoine Diome taalibe Serigne Saliou bi ñun dafa nekk suñu mbokkum taalibe ñu bokk Serigne Saliou Pape Maguette Antoine téyewu ko politique daf ko téye ndax frère am ndax sëñ Saaliwu am fu mu ko teg ci wax dëgg yàlla yéen waa Kër Ndiang lii ngeen am tamit nag dëgg-dëgg ab sag la soo leen amee ba seen doom ji di wax ki nga xam ne moo yor réew mi di la ministre de l'intérieur bu ne ko kar mu ko woy Pape Maguette Sawa Ndakamu ñu waxtaane li ñu war a waxtaanee loolu euh, Pastef fa moo ko fa yóbbu mais du ay at. nit nag bu dëkkee yow am Pastef ca lu mu am indil la ko danga koy jàppale ci li mu nekk xob yi rek lañ leen laaj mooy carte yi ñu fexe ba le 31 juillet moom gars yi na ko président Macky Sall waxee woon rek bu ngeen xëyee dem leen voté ji ñëw taal añi tëdd di déglu bu 5 jotee mbàcc mi tàmbali. yar yi daal bii moom na dal waaye xam ngeen ni gars yi fi nekk di woote ay tëggi booleek vraiment man ñooñ damaa rus sax di wax ci ñoom ndax dafa am loo xamante ni mag da koy weesale boppam. ndax dafa am yoo xamante ni vraiment bojo bojo yi ñoo ko moom ñun nag sëñ taxaa dafa am lum ñu junj te junj doy na boroom xel wax ju egg dafa ko moom sëriñ bi daf ni Macky Sall yow de dama laa ameel bor ca bor bii ma la ameel sëriñ Touba rek laa lay bàyyeel mu fayal la ko murid yi nag képp ku ameel sëñ Touba bor ñun ñoo la ko war a fay jël leen xob yi jox ko président Macky Sall di leen sant di leen gërëm. yàlla dafa dogal ñun. bu ñuy dugg ci politique dara warulu ko lu dul dëkk bi nga xam ne fi lan dëkk ak koñ bi nga xam ne fi lan dëkk ñu dem di fekke fa ñuy décider lépp loo xam ne si ay cër la ñu di ko séddalee kër ñang gis si boppam loolu moo tax ñun ñu dugg ci politique comme yàlla dafa dogal depuis 2010 2011 ba tey ñu dugg ci parti politique muy parti bi nga xam na si mooy parti démocratique Sénégal. ñu yàgg jëflante ak yéen si lu rafet ndax comme waxal ngeen ko seen bopp 2017 la ñu njëkk a yëkkati fii financement 1 million 500 jàppale leen ko pour ngeen di si liggéey ci nit ko xam ne si san la. defal leen ay formation hors de civil éclairance publique muy wàllu làmp yi lépp luñ ci man ñu liggéey ci liggéey bu am solo lu jëm ci carte d'identité yi ak kayitu judd yi képp ku nekk si koñ bi te amoo ko lépp doon si man ñu def ko si loolu moo tax ñu ànd ak yéen depuis boobu ba tey jii comme nag yàlla dafa dogal président Macky Sall moom moo jiite réew mi moom la fi yàlla teg le ministre intérieur Antoine Félix Diome di taalibi Serigne Saliou ñu bokk sëriñ sëriñ Cheikh mu Serigne Saliou di sëriñam di sama sëriñ Mohamed Cissé mii nekk sama wet nekk candidat moom tamit. bokk si njabootu Serigne Saliou nag Serigne Moustapha Saliou mooy sëriñam kooku nag tey jii bu demee ba gis ma woo ma ne ma ñëwal ñu waxtaan ñu ànd jàppale président de la république pour tabax Sénégal loolu du ma def lu dul ñëw ànd ak moom ngir jëmmi Serigne Saliou mi nga xam ne si moonu boole te li waral loolu nag ànd bi yombutoon. ndax ñun lépp lu nuy jiital rek négociation bu nu mën a toog di ci waxtaane du nu wax sunu intérêt bopp mais intérêt kër ñang la ñuy njëkk a jiital ndax bu fekkoon ne sunu bopp rek ñun lépp lu nu yàlla jox doy nanu mais politicien bu nuy toogal ak koo mën a doon ak foo mën a bokk dañuy ñëw wax la li nga xam ne si moom la sunu koñ di soxla boo nu si mënee jàppale ñu ànd ak yow si loolu boo nu si mënta jàppale ñu wan la ginnaaw waaye fa yéene wu ànd ak benn politicien di ñëw di nax sunu askan. moo tax bi nu demee ba toog ak ministre bi ñu xamal ko ne ko fi nu dëkk kat am na ay mébét yoo xam ne am nañ ko fa war leen a jàppale si lu baree bari ba yàlla dogal tey jii sees yi fi exposé woon léegi lañ ko fat muy téeméeri sees moom moo leen ko jàppalee jaare ko ci sama loxo cinquante palaat yu bees tàq yooyu tamit moom moo leen ko jàppalee jaar ko ci sama loxo ñu war ko teg ci loxo mbootaay gi nga xam ne sii yaa waldi Diop moo ko jiite mu boot koñ bi yëpp nga xam ne képp koo xam ne si dafa amati soxla programme xew day ñëw jël ko bàyyi fa garantie bi comme ni ngeen koy defee bu paree delloowaat ko bu ngeen gisee koo xam ne si day luye ngeen luye ko jël xaalis boobu denc ko seen kees pour mu gën leen yokku bu nu jógee si loolu dinañ jéem a lijjanti baas boo xam ne sii. dinañ ko jox mbootaay gi ba tey mu bokk ci bagaas yi loolu dinañ ko def incha allah kenn mënta wax timit te waxut li nga xam ne si mooy alxuraan ndax moo tee dëkk bi moo tax dañu jëndoon ay basang war a jox daara yi mu sàll moom mi nga xam ne moo nekk fi si koñ bi di jàngal xale yi alxuraan pour bu nuy jàng ñu am fu nu toog surtout nawet bi ñu jëm loolu tamit mi ngi fi dinañ ko ko jébbal ak daara yi Baye As Ba daayire bi nga xam ne moo nekk fii tamit di daayire turandoo Serigne Fallou yi ñu nekk ay xale te soxna Aada Jaw jiite ko nga xam ne ñi toog fii ñëpp ñu si bari seeni doom dañ cee bokku ñooñu tamit jëntal na leen ay basang yoo xam ne si heure bu ñuy daayire dinañ si mën a toog ndax daayire turandoo sëriñ Serigne la mi ngi fi si koñ bi te loolu lépp bu amee dañuy sant ministre Antoine Félix joom ak président de la république ndax ñoom ñoo nu ba nu ma am loolu. ndax euh, mbir yi foog ñu waxante dëgg ñun wax naa ko ministre bi wax ko ñi nga xam ne si mooy Moussa mbay mi ak maam daam loo nga xam ne si ñoom tamit ministre bi moo leen indi ci liggéey bi pour gën a yaatal ñun noonoo wun ak président Macky Sall ne dañ koo bañ wala dara ñun ku nu teg si réew mi dañuy xool ba xam yaa ngi liggéey réew mi wala liggéey yoo te ku ne xam na ne autoroute Ila Touba rek loolu doy na bilan ndax ñu bari bu ñu daan dem Dakar fii yoonu Bambey Diourbel la ñuy jaar ñu leen di yàqale te tey jii Dakar boo fay dem une heure de temps nga egg biir dakaar boo doon jóge Dakar ñëw Touba une heure de temps nga agsi def fi hôpitalu niveau 3 boo xam ne ay milliards la def fi tamit assainissement ndax ñun nit ki mën nañu taxaw di la contour waaye tamit ci biir contour bi dañuy gëstu say réalisation xool li nga def si bi ak li nga ci defut bu nu gisee kat na dëkk bi bëgg nga mu avance te yaa si liggéey ñu bàyyi lépp lu ñu jàppoon ñëw ànd ak yow ngir njariñu Sénégal ak njariñu koñ bi nga xam ne fi leen dëkk kon tey jii loolu moonu indi si lii tey jii ngeen xamee ko noonu te sunu njortu rafet na si yéen di ngeen jàppale ndax lépp lu nu mas a nekk heure bu ñu leen tàllalee loxo ñëw ngeen fekk si ñu si kon tey jii bis ni ki tey man Pape Maguette Diaw comme ni ma leen ko waxee léegi man nag. kenn moomu ma il faut ma préciser ñi nga xam ne si ñoo ni seetaan ndax réew mi dafa am ñoo xam ne heure boo demee bu bokkutoo ak ñoom xalaat léegi dootuñu ànd ak yow xalaat ak dina xooqutal ñun yàlla dafa dogal politique combat bu nekk mën nañ ko fii nii si opposition fukki at yàlla du ñu ragal te kenn mënuñoo tiitloo kenn mënuñoo xooqutal ñun suñuy ambition lañu yor ginnaaw bi suñuy waajur jàppee suñu loxo dem jàngal ñu amul kenn ku jàpp suñu loxo naan ñu ñëwal def politique wala bokkal parti bii ba nuy bokk parti ñun ñoo xool parti ba nu neex ñu dem dugg fa bi nuy gisante ak Ousmane sonkoo tamit di waxtaan ak moom pour engagé wu nekk ci partam di ko jàpp tamit jël ay engagement kenn téewul sunu loxo kon tey jii bu ñu demee ba gis ne président Macky Sall am na lu muy def ci réew mi ministre intérieur Antoine Félix Diome nga xam ne si moo jiite kaaraange bépp sénégalais boo xam ne si yaa ngi yeewoo ci biir Sénégal nekk taalibeb Serigne Saliou Abdou Niane wax na ko fi léegi bi koy Serigne Saliou di may kër fii si Touba loolu lu yàgg la ndax koñ boobu mën na ne Antoine Félix joom moom moo ko sanc foofu ab àll la woon te tey jii foofa boo fa demee doo xàmmee ku Serigne Saliou fonkut ku tekkiwul dara nag Serigne Saliou du la boole si boppam bay jël ay kër di la ko may loolu na leer kon nit ñi foog ñu ubbi sunuy xel ak sunuy bët di xalaat bis ni ki tey daal ñëw na dugg ci biir APR ànd ci ginnaaw la ministre Antoine Félix Diome bu am na foo xam ne si pour ma terminer damay indi ay leeral ndax ñi ngi gis ay ndaw ci réseaux sociaux yi ñuy am lu ñuy bind fan yii lan daan jiiñ madame Aminata Touré daan ko jéey jiiñ Abdoulaye Daouda jàlloo daan ko jiiñ Aly Ngouille Ndiaye daan ko jiiñ Amadou Ba tey jii bi Antoine Félix Diome duggee Touba pour yokk parti bi di APR ñoo ngi dégg ay nit naan Antoine Diome dafa am ambition dafa bëgg a remplacer président Macky Sall di ko tuumaal yooyu nan ko arrêté ndax tey jii ku yokkul danga wàññi ndax tey jii bu fekkee ay ndaw dañu nekk si opposition di contre parti au pouvoir ay élection yu jot ñu bokk si ñi leen di yàqal ministre Antoine Diome kenn gënu koo dëkk si dëkk bi taalibe Serigne Touba la nekk taalibe Serigne Saliou kooku bu demee ba xool ay nit ne leen kaay leen ma indi leen si parti bii ma nekk ngeen ànd liggéey loolu dañ koo war a rafetlu waaye nag ñi ngi gis yenn ndaw yoo xam ne ñi ngi ci réseaux sociaux yi di bind loolu Antoine nag gor la ndax président Macky sàll Antoine Félix Diome homme de confiance la ndax intérieur ak nim sensible ñu ne ne lépp luy police Sénégal yaa ko jiite ak sécurité askan wi koo wóolu doog ko def kon nag Antoine Félix Diome ministre bu président Macky Sall wóoloo ba jël ko ñëw jox ko lu toll ministre de l'intérieur ne ko seereel ma ko bu dee gor war naa fay naar bi xoromam liggéeyal président Macky Sall ci lim ko defal te loolu noonu si la nekk nii kon nanu delloo si xel yi boole xol yi liggéey doon benn bennoo bokk yaakaar gañ élection yi ñu jëm incha allahu rabbi